couloir bu ndaw ay fin de carrière di ci bëre di ci mayante ay sens seen biir roi de sarene ci seen biir nanguwul a génn xale yi nekk yi di génn war a am seen sens soq ñoom yu ndaw yi nga xam ne seen combat day neex ñooñu war a ñii ñu génn leen ci loolu ñoom am ak booy Niang ñii ñëpp dañu dugg ci pour booy booy yooyu ndax ay seeni i morom lañu màggat yii ak ñi nga xam ne ñii seen i daa damm ak seen kii ak seen ndigg di bañ ak. Mm. ñuy taafante ko mbagg yooyu sa foo dañ ko teg ci suuf sa ndigg bu dee métti ne sama ndigg lay métti. Mm. sa paar bu dee dafa dammoon. Mm. pellir am ay pronox dégg naa sax benn waaye bi wax naa seen mbër amoon na benn dañu ko exigir. ci ba muy bëri jeeg ñoom kii de ca paar ku damm gaa dafa nangamal yooyu yëpp lu jënd wu ñu. soo mosul bëri bàyyi. amul seen. booy ñaa ak ama est ce que jubóon ah si loolu amul benn problème hmm. non amuñu benn problème kenn ku ne ci dafa fekk rek hmm. kër ku nekk ci lamb la pour mooy gis nga boo ñaa ñëw na ci lamb ma seen mais tànk sax deux minutes hmm. mun dem bañu ñëw fekk na ama dafa tukki woon jam Nigeria ci ba dem na fi non loolu bu nga ay supporter la seeti woon rek dem na fi Nigeria waaw ay supporter la seeti woon rek moom sax gëj naa bëre te ñooñu itam jaadu ñuy jàppale ko Nigéria supporter fu ñu wala wala wala supporter rek non ama dëkkul gi Nigéria Guinée Bissau gii la dëkk ak hmm. Sénégal ay nijaayam dëkk fii